baguette magique ne amet am lan nga bëgg a changer ci Sénégal. fen bu fiy jógee ñuy am jàmm fen <laughs> ah. <laughs> mais gars yi dañuy mais guichet automatique de fen gars yi dañuy fen bu ma tiit mais est-ce que xam nga ne mos naa di seetaan benn live waa ji di wax ci man ba ma toog ne sama yaay est-ce que kii kii bi muy wax ak man benn la. je te jure à mes enfants bu ma leen expliquer télé. Mhm. luy télé. actuellement au Sénégal dama leen wax ne gis nga télé suñ télé bi nekk saal bi quoi ma leen gis ngeen écran bi ni mu toll. ñu ne ma ah, xam ngeen ngand na ñu ne ma wax. Mhm. ma dem taxaw ci wetu écran bi ma long ko ma tàllal samay loxo ma large ko ma leen te pourtant chaque jour fi ngeen di toog may jénn fi te yéen a ngi nii taxaw ma taxaw ngeen xam ne affaire bi man xajuma ci. xajuma ci donc man xajuma fii ba pare di fi génn ngeen war a xam ne amul dara lu réel foofu la Sénégal toll nee naa leen lépp lu ngeen gisati ci écran maanaam ci écran rek lépp lu ngeen ci gisati jàpp leen ne ay fen la d'abord <laughs> pour yow daal euh, dëkk bi fen moo ko yàq waaye bàyyi fen moo ko mën a defar yàlla xam na ko te yàlla ci bokk na ci li mu gën a bañ ci li koy liy yëngal fa mu toog ah, kilifa gu toll ni yàlla ngay def loo xam ne day yëngal fa mu toog déranger ko <laughs> kii sa sab wayjur wala sa sëriñ sax bu toogee nga tëgg ñu ne eh bàyyi fi ngay tëgg kilifaa fi toog mais mm-hmm. ngay def lu koy yëngal te sa yaram dawul méttiwu mm-hmm. la dara raful mm-hmm. ci ay kàcc yoo xamante ni yow leneen li ngay wax dara teg ko ci ay góor ak ay kilifa loolu nag wax dëgg yàlla war na fi jóg baguette jógee rek ñu dem baguette bi kon naa ko wut jox la ko alors on va terminer kebe <laughs> mu ngi dee ak Fapal <laughs>